Euh, Karim Wade euh, wax nañu ne dina ñëw. Maria sax mu ngi lay yóbbante nee na daal bëgg nañu vraiment nga wax ñu kañ lay ñëw. Maria ta fii la mu ngi. waaw ah moo tax mu ngi participer émission bi de mu ngi yómbal yónnee ay xam moom lépp lu laal PDS da koy ñor xaw ma nag. waaw ci ci lay tontu ni xam nga. nañu wax nag. quand est-ce que Karim vient dama bëgg d'abord dama jaaxle ci bi nga waxee ne wax nañu ne chaque semaine ñu ne dina ñëw. ba bon dama ko waxee noonu mais du chaque semaine. vraiment waxee noonu laay bañ nag. waaw waaw maa ngi jégalu maa ngi jégalu du chaque du chaque semaine mais mais mais baat bi li ñu ko dégg bëri na. mu ngi ñëw préparé ah, ah, na ay bagages mu ngi ñëw mu ngi ñëw mu ngi ah, ñëw. mais mu ngi ñëw ñu bëri xaar nañ ko te yàlla dogal na sax jël na leen. xam nga mu mu ngi ñëw moo la téye fii. waaw mooy l'espoir hope. ñu la téye fii hope liggéey la bari fi xaalis yokk fi dem defi leneen moo la téye fii fi amuloon doo yaakaar ñu bëri de yaakaar nañ ba dem ndeysaan gis fekke wuñ ko. Ah, très bien loolu la donc ñun ci la ñu téye mais on devient de plus en plus précis Lamine Thiam wax na ne ci biir dialogue bi ne il viendra après le dialogue mu teg ci ne dina ñëw assister à son congrès d'investiture moo tax ñaari dara ngoow lu approximatif la. congrès bi kañ la. ah. congrès bi kañ la jàppaguñ ko. kenn jàppagul congrès wax naa la sànq na la pour prévenir ne kenn rek a defagum congrès d'investiture. Mertin Abdoulaye Tine am na ñoo xam ne ñi programmé nañ ko ñu ngi def seen avant première pour dans 15 jours. congrès congrès am na ñeneen ñu def ay ay dëmbooj ay ñeneen ak ñeneen wala loolu du congrès d'investiture. xam nga dafa am congrès ak congrès d'investiture ak congrès élection mais li ma jàpp ne congrès bu daje ne investi naa diw mën na nekk. mais bi ma ci jàpp man. ñu am ko ñu dajale investir nañ ko comme candidat à l' élection présidentielle Karim Wade du congrès lañ ko investir fi mu nekk ni ñu ngi wax naan mooy suñu candidat mais dafa am document boo xam ne bi da nga koy defar yóbbu ko conseil constitutionnel ñu ne le congrès du parti démocratique sénégalais si vocable coalition nangam représentant du diw déposé ni conseil constitutionnel en date de tel dossier nangam bu am nangam nangam am na benn attestation d'investiture de son parti dossier la. ok très bien donc loolu àgg àgguñ fi mooy Karim Wade dina ñëw ko waxtuñ ko am na en tout cas moom du mu wax moom nee na moom d'accord ne Karim Wade mën nañoo sax dans quinze quinze jours si biir campagne bi mais yéen fi ngay liggéey yow bii xaw barke bi fii ci ci kër gii. waaw. Yérim Seck joxe na ci ay information ci ñëwu Karim Wade te nee na Karim Wade la waxal. ah oui ah oui te xanaa may mën a nduur du invité ay nit yoo xam ne dañuy wax waxu fala fala te yee Cheikh Yérim Seck du wax waxu fala. nee na moo wax mais Maimouna Ndour moom elle n'est pas comptable de ce que disent ses invités. non waxuma parfois parfois tamit nit wax na fi lu nekk mu dañ. non waxuma te bu dañee du dellu si waat encore une fois waxuma loolu mais gis naa ay nit yu mu bañ ay invité moom parce que ay fala fala lañu. ah d'accord je sais comment vous fonctionnez. ok yenn saa yi nit du leen intéressé parce que naan kii naa nangam yenn sax ngeen ne man li mu sor rafetul wala dafa ñaaw yéen ñi ñëpp. vous êtes noonu adduna bi noonu lay doxee. da ngeen di am pensant ci dina ngir lii ngir lii ngir lii pensant Yérim Seck. mais pensant bi ñu am ci yow kon yow xam nga ko lu tax ñëpp bëgg di toog ak Doudou Wade waaw mais li mais li ngeen may wax moo tax. moo tax est-ce du sañse bi tamit mën na am sañse yi la. waaw mais ci parce que moom moo ànd. ñu muy kase affaire yi bleu beeg. kii bi mbaxane mbaxane xam gisoo gisoo cheikh bi. moo tax xam nga yàlla yàlla yónniwul ku tilim yónniwul ku salte yónniwul ko amul mbokk yónniwul ko ñaaw. dëgg la. <laughs> moo dañuy jéem a nuru lu rafet c'est normal donc par conséquent sur cette affaire moom wax na ne moom affirmé na ne wax na ak Karim Wade affirmé na ne Karim wax na ko dina ñëw. wax nañu nag ay waxu moment bi nga xam ne c'est plus culminant nangam donc kooku du ma ci dugg parce que fond waxtaan boobu du ma ci dugg parce que fekke ma ko mais nga jàpp ne daal suñu ñëw nekkul ni dans l'imprécision ni dans l'impréparation maintenant li mu fi fekk wax na ko léegi c'est un appareil appareil bi mu fi fekk dans la régie pour ñu def émission bi ndax technicien bi defar nañ ko bi mu laata ñëw ndax fomp nañ ko réglé nañu manu yi seet nañ ko ndax courant bi ëgsi na ndax yëpp baax na loolu mooy problème fondamental bi tey et c'est extrêmement important mhm. la préparation de la campagne l'organisation de la campagne le timing de la campagne le déroulé de la campagne même le processus trajectoire mhm. fi ngay aw mhm. yoon yi ngay aw dafa important ci foofu ñu jëm loolu. am ñu ci liggéey ci yéen seen biir parti. bien sûr depuis deux mille dix neuf on avait préparé les il faut les à jour donc loolu mais maintenant tout ça boo amee il y a un problème fondamental nga xam ne mooy attire les derniers pour ñëw fekk si la mooy la correction et la discipline. correction et discipline xaaral ma ko correction et discipline waaw baax na. parce que sunu candidat du mën a dem fu nekk. Mhm. dina dem fu nekk mais fu mu jógee fu mu jógee fu mu jógee rek dafay bàyyi wax. Mhm. dafay bàyyi ay nit. Mhm. dafay bàyyi la dafay bàyyi ay laaj yu laaj ay laaj yu laaj tontu am ay nit yu ko taxaw ci loolu pour régler li nga xam ne moom la fa bàyyi à son départ yu mu ñëwee. la mu fa def ak la mu fa wax ak la mu fa bàyyi ak nit ñi ñu bëgg ñëwaat moo am ñoo xam ne dañ leen di dajale. d'accord waaw donc et la discipline fait partie des meilleurs facteurs de victoire d'une armée.